ndimbal ci wàllu yoon ci bi ci mbiru gàddaay na fexe ba sa adresse di yees su fekkee ni danga bindu ngir daw làqu sañ-sañu liggéey walla benn càkkutéefu gàddaay danga wara soppi sa adresse ak mëneefu nekk ndaw réew yi ak mëneefu nekk ndaw réew ak gàddaay ci Amérique maanaam li ñuy wax US Citizenship and Immigration Services ñu koy dàkkantale USCIS ci biir fukki fan aju ci sa nekkinu kaa danga war a soppi sa adresse ak sa bureau bi yore mbiru saytu gàddaay maanaam executive office of immigration review ñu koy dàkkantale EOIR takk deru gàddaay ak duwaañ maanaam US Immigration and Customs Enforcement wala ñu koy wax ICE bu Amérique mën naa am mëneefu nekk ndawu réew ak gàddaay ci United States mu di USCIS mën nga soppi sa adresse ak EOIR sa bopp ak xarala yu yees yi wala jaare ko ci bataaxalu internet mën nga dem ci site bii di https deux points slash slash respondent access point eoir point justice point gov slash en slash forms slash eoir 33 i c na nga bàyyi xel ni danga wara itam yónnee ab copie copie sa formulaire soppi adresse ci bataaxalu internet bi jox ko département wu kaaraange réew mi moo di Department of Homeland Security te nga yónnee ab firndewu wu mëneef maanaam proof of service waa eoir sa bopp ak xarala wala ci email càmbaral nekkinu àtte yi ndaw ndaw càmbaral nekkinu àtte yi ndaw ci sa telefon te nga jëfandikoo ci système système u e buy demal boppam wooteel ci 1 huit cent huit cent quatre vingt dix huit soixante onze quatre vingt wala nga dem ci site internet bii di https deux point slash slash acis point eoir point justice point gov gov en slash su fekkee ne système xibaaru kaa buy sàkkal boppam bu EOIR dafa lay yëgal yëgal ni ab ndigalu dindi def nañu ko ci sa kaa danga war a jokkoo ci saasi ak sa layalkat su fekkee ni amuloo layalkat wooteel ci buumu jokkoo taxawu yoon maanaam immigration legal support euh, legal support hotline mu di MOIA ci numéro bii di 1800 354 03 65 ci diggante 9 ci suba ba 6 ci ngoon ci bisu altine ajjuma walla nga woote ci ci altine ba àjjuma wala nga woote ci 311 te nga wax action NYC maanaam action NYC su fekkee ni da nga dugal sa bindu ak USCIS online maanaam USCIS online jaare ko ci buntu USCIS dinga mën soppi sa adresse ci biir internet bi demal ci site bii di https deux point slash slash my account point uscis point gov ma baamtuwaat https my account m y a c OUNT point USCIS point gov gov slash su fekkee ne da ngaa dugal ab bindu ak USCIS jaare ko ci email di nga mën soppi sa adresse ci biir internet bi mën ngaa dem ci site bii di https slash slash egov uscis point gov slash coa slash display coaf majuscule coaf orm coaf orm point do su fekkee ne da ngaa am ay càmbaru AIS dinga nga mën a mën soppi sa adresse ci AIS ci internet bi mën ngaa dem ci https deux point online change of address point ais point gov O C O A xibaaru yoon ngir woy daw làqu yi laajal kuy liggéey ci këru nëgandiku gi su fekkee ni danga soxla ndimbal ngir dugal ab bindu ngir làqu këyitu sañ-sañu liggéey nekkenu kaaraange nëgandiku xibaar ci wàllu gàddaay ak nekk ndaw réew mën nga dem ci https deux point www point nyc point gov gov tiré euh, slash site slash immigrant index point page gisal mbootaay ngir saytu yoon ci wàllu gàddaay seetlu soppi adresse ak soppi taxawu ak taxawu ci bindu gàddaay bokk na ci li ñu yamalewul ci ndaw la ci daw làqu yi da ngay dem ci https deux point slash slash www point nyc point gov gov slash site slash immigrant slash légal tiret resources slash légal tiret information information tiret for tiret asylum tiret seekers point page buumu jokkoo taxaw ci yoon ci wàllu gàddaay maanaam immigration legal support hotline bu MOIA ci numéro bii di 1800 354 03 65 jàppandal na altine ba àjjuma ci diggante 9 ci suba ba 6h ci ngoon te di joxe ay xibaar ak tegtal ci programme programme yi mëneefu yoon seetil mbootaayu aji xeexalkat yi wéy xeexalkat yi woy gàddaay yi maanaam Immigration Advocates New York uh, Network moo di uh, mbootaayu aji xeexalkat yi woy gàddaay yi su uh, ngir gis ab lim limu lay layalkat yu dul fayeeku wala nga woote ci buumu jokkoowu américain yu bees maanaam New Americans Hotline ci numéro bii di 1800 566 73 36 wala nga xool ci internet bi dem ci site bii di https deux point tiré euh, slash slash www point immigration advocates point org slash legal directory slash search point d'interrogation state égale n y majuscule